alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashraf almursalin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mbokki asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu dellu si waat ci sunu dars fiq ci njàngum fiq bu ko defee ñi ngi ci bind ñeent bind boobu nag dañuy daal di dugg ci buntub sobe maanaam bunt bi nga xamante ni ni day àddu di wax ci lu jëm ci wàllu sobe ndaxam xam sobe moom mën nañ ne ñu nag sobe ñoo dëkk ma ngoog moo tax lislaam indi ci ay njàngale maanaam njàngale yoo xamante ne ni day aju ci ni ñu war a jëflanteeg mbiri sobe bu ko defee dañuy jiital ci àddu wax ci lan mooy sobe lan mooy sobe ñu njëkkee nag ci làkk ma ngoog mu ne sobe ci làkk mooy tilim maanaam lu tilim salte lu seexlu loolu la ñuy tudde sobe ci làkk kon ci mbir yi nga xam ne ay mbiru aada mbiru àddunaak yu demee noonu donc sobe loolu la fay tekki maanaam ay tilim tilim mangoog ay salte maanaam fii moom lislaam àddoogul sharia àddoogul ci làkk lañ nekk léegi nag ñu daal di jàll nag ci diina ci domaine bi nga xamante ni ni nag sharia fa lay àddoo lan mooy sobe bu boobaa ci sharia lan mooy sobe ci lislaam lan mooy sobe ci diina mbangoog bu ko defee fii moom dafay concerner muskallaf bi mbangoog mu ne ci diina sobe mooy bépp tilim tilim bu lislaam digle ñu moytu ko bépp tilim tilim bépp salte bépp mbir mu seexlu boo xam ni lislaam dafa àddu digle ne mbir moomu moytu leen ko raxas leen ko gis nga dindi leen ko ci misaal waaja ba mu duggee ca jàkka ja nga xam ni kaw ga la jóge dugg ca jàkka ja ndeysaan jékk saa yi rek daal di jóg <laughs> ma gis nga daal di saw ci biir jàkka ji gis nga naka noonu saxaaba yi jóg jëm ci moom buur wuti ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen laa tusrimuuhu bu leen ko daggal sawam bàyyi leen ko mu àggali su ngeen yonent bi ni mu mënee jàngale xam ngeen ne kii sunu boroom da ko doon wax yu ndax yéen ñëpp xam ngeen ne di saw di dagg médicalement c'est pas recommandé gis nga ma ngoog mu ne bu leen ko daggal sawam laa tuzrimuhu ay laa taqtau bawlah waaye leen ko mu saw ba nooflaayu parce que mën nañ laa saw nga nga tiit saw ma am na nu muy dagge mën na laa indil ay jafe-jafe ki wér gi yaram xam ngeen ni kii jamono boobu 1400 ans avant muy wax lii kii yàlla ko yónni ba mu sawee ba pare te beneen mbir sax da caa nekk buñ jógoon dal ci kawam muy daw mën na am saw mi léegoo léeg am lu rëcc tis fee tis fee tis dootuñu xàmmee sobe googu nan lañ koy defaree waaye pour ñu xam ni ñuy defaree sobe gi sobe nan lañu war a jëflanteeg moom subhanallah yonent bi ne bàyyi leen ko ñu bàyyi ko mu saw ba pare ba mu pare mu ne jël leen ndox ngeen sotti ko fa mu saw kan ca noonu wala ca xadis yu mel noonee bokk na ca texte yu mel noonee ni ñu xamee ni kon ndekete saw sobe la waaye sobe ga nan la ñuy jëflanteeg moom dañuy daal di jëfandikoo ndox daal di ko ca ko ca sotti kon gis nga foofu addu ga nga xam ni sharia addu ko ca saw yooyee kon sobe ci lislaam mooy lan mooy bépp tilim tilim wala lu salte wala lu ñu séexlu loo xam ni lislaam digle nañu moytu ko léegi nag sobe dafa am ay xeet xeeti sobe yi ci lañuy dugg nag mangoog mu ne xeeti sobe yi ñaar la mangoog sobe ñaari xeet la dafa am lu ñuy wax sobe ci jëmm maanaam loo xam ne jëmm ji sobe la ak sobe ci atté ak lo xamanté dañ ko jox ak sobe ma ci am lo xamanté ni ayne bi muy jëm ji sobe la mom ci matière bi sobe la ma ngoog ak lo xamanté ni nak mom matière ba naam du won sobe waye agsi na foo xam ni joxees sobe ba ca jëk moy sobe ci jëmm mooy lan mooy li nga xam ni ci boppam sobe la lu mel ni saw matière bi ci boppam sobe la liquide boobee ak lu mel ni neefere donc neefere comme lu mel ni neefere mbaam sobe la loolu dikk na ci xadis gis nga ma ngoog dikk na ci xadis sobe la kazalika tamit bu bu doomu aadama gis nga yooyu noonu matière yooyu ay sobe la beneen bi muy sobe ci àtte loo xamante ni sharia dikk na dox dox dox ba àtte ne lii sobe na wala lii sobewu na loolu mooy lan mu ne mooy lu laab loo xam ni sobe da caa dugg ba mujjee sobewu lu laab loo xam ni sobe da caa dugg ba mu mujjee sobewu maanaam nga tegoon sa ndox mu laab sobe dugg ca ba ca sobe ga duggee daal di koy noot xam nga romboon nañ ko ci bind ñett ba mu ko nootee soppi benn rek ci ay melokaanam ndox ma noo koy mujjee tuddee danga naan ndox mi daa sobewu kon gis nga àtte lañ ko jox ndax ndox ma ca cosaan nekkuloon sobe gis nga laaboon na waaye nag dafa am xew-xew bu xew xew-xew bu xew xew-xew ba xew mooy lan mooy sobe da caa dugg noot ko soppi benn ci ay melokaanam bu boobaa àtte bi mooy lan àtte bi mooy kon ndox ma mujj naa sobewu kon gis nga loolu it day tudd sobe day tudd sobe waaye nag sobe la ci lan ndax sobe la ci cosaan ñu ne matière boobu sobe la déedéet waaye nag sobe dakaa gaar ba ko sobee gaaree àtte daal di tegu ci kawam ñu àtte ne lii kat sobe la a ah, woccal ndox moomu sobe la ndax kat sobe dugg na ca dal di koy noot ma kon mbindum fiq baa ngi noonu aju ci li nga xamante ni nii moom mooy buntub sabe buntu la nag boo xamante ni nii jeexagut des na yeneen maanaam tër yoo xamante ni incha allah dina ñëw ci mbind yi di topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.